groupe bi war a jëli bip ñi war a jëli Ousmane Sonko créé na leen ba pare ñi ngi doon dem di ko jëli ji Ousmane Sonko nag lii lépp yaa ko yóbbee sa bopp boo yeggee ci kaso bi nag ma nuyul ñoom Lamine Niass nag ma nuyul ñoom Assura ñoom nit dof délinquant yeeg sa woyu yeeg taalkat yeeg sàcc yeeg reykatu nit ñoom ñëpp a nga fa nuyu ma leen day Xadi Njaay nag day wasin ci kaso bi na nar a wasine amee fa doom bu amee doom na ko tuddee ki nga xam ne moom mooy ino wala bandi yu mag ya guluwaar ya waaw wasalaam ña ngay jëli Ousmane Sonko ca yàlla